naa buy ah? <laughs> romb. bu yëgoon teel a jàll yeewu boo ko ko defoon loolu la lay def mais bon comme yeewoo gu ma garaawul <laughs> amul benn problème moins cinq ma yeewu ah. mais voilà kon mu jàllaat si j'étais pas fier de toi dama lay song xeex voilà merci d'être là on va vous parler de cette fille bi ngeen gis nii mu romb ma léegi may xuloo ak moom c'est une jeune femme qui a beaucoup de talent et qui est très respectée nga xam ne actuellement am na fu mu euh, jëlee euh, cinéma wu euh, Sénégal am fu mu ko yóbbu donc depuis un moment gars yi dañuy kaas naan wey cinéma bi doxul noonu gars yi jàppuñ ci et pourtant on a deux professionnels beaucoup de professionnels donc dinañu Euh, waxtaan ak euh, euh, moom dans quelques minutes puisqu'elle est invitée bu Aïssatou Paye Fall ak Cheikhou Gueye Sanex moom dinañu jox une place dans l'avion on parlera de ce grand film et avec beaucoup de plaisir loolu dañuy tàmbalee Aïssatou yeewu culture bu tay bi waaw Baye Cheikh maa ngi Ah, maa ngi nuyu euh, Saner merci ngeen ñëw wi siñu comme ni nga ko waxee kon nag tey une place dans l'avion la ñuy waxtaanee ah Khadijatou Sow nekk réalisateur réalisatrice bi yow tamit nga nekk euh, mun naa wax acteur principal euh, ci court métrage boobu nga xamante ne tax na bu mu demee fes FESPACO mu jëlee fa poulain d'argent mu sargal Sénégal donc suñ suñu mënee xool benn extré bu ndaw ci ci court métrage boobu ñu dellu si waat ci plateau bi envoya en avion pour les États-Unis ami maa ngi dem États-Unis nag bu ma demee na nga toppatoo xale yi bu a baax place dans l'avion. <laughs> en fait damay fàttaliku bi ñu ko projeté euh, toute la salle ñëpp daanu si suuf dañu ree ba sonn en fait c'était un message mais euh, sous forme de voilà vous n'allez pas être euh, du nekk message sur l'immigration wala dara boo xamante ne daf ñuy jël euh, scotché ñu nii ku nekk mu nekk lu wala dara mais defe naa ne yow yaa ko taamu noonu xadijatu def ko loo xamante ne lu hilarant la luy reetaan lu nit yi pour gën a mën je pense capter captiver ñi nga ne ñooy ñiy seetaan di cinéphile mm-hmm, c'est vrai Euh, tout d'abord salaamaaleykum. maaleykum salaam ah, ma Pape Cheikh. <laughs> mais euh, euh, waaw en fait immigration dafa euh, nekk benn sujet boo xam ne ñun dañ ciy dund mu doon des fois ay cas yu triste la ñuy gis à chaque fois ñenn ñi ñu ngi dee ci géej bi ñenn ñi ñu ngi leen di def sax léegi esclave si gis ngeen info yi am. mais euh, motivation yi des fois pour dem dafay dafay am différence donc euh, si plusieurs films def naa d'autres documentaires yoo xam ne aspect bu triste laa wone ñu ngi bëgg dem am ñoo ngi bëgg a delluwaat et tout mais là je voulais montrer aussi aspect rêve bi nit ñi di am parce que gis naa ay nit yu dem mais ba ñu dem li tax ñuy dem rêve la c'est mhm. pas guerre ni euh, dañu xiif ni quoi que ce soit c'est juste que dañuy gis ay images mhm. yoo xamante ne da leen di attirer si New York wala Paris mhm. ils se disent que ils faire la même chose ils veulent vivre la même chose donc motivation boobu laa bëggoon wone sous forme de rêve en fait c'est c'est un rêve boo xoolee court métrage bi rêve la parce que y a plein de choses qui arrivent tu te dis mais c'est vrai ou c'est pas vrai donc voilà comment important ñu wane tuuti motivation yi indi en plus moi pense que di raconter euh, drame quelquefois nga dugal si quelque touches d'humour mm. dina dina dina dina tax message bi gën a waaw dina di jàll ba pare nga jël tamit euh, Saner mu joué euh, mu nekk euh, acteur principal bi <laughs> moom itamit mu indi si benn touche bu extraordinaire Saner nuyu naa la maa ngi lay nuyu Aïssatou waaw yàquloo yàqul yàqul yàqul kiiwam de. yàqul yàqul filmam de. mais tey aw ma chance quoi. <laughs> ah gëbantu daal man daal fi mu ne nii daal. waaw waaw waaw yi yëpp daal. ay waaw daal. waaw waaw waaw daal. <laughs> da ngay waaru daal tey daal nii daal tey. da ngay waaru daal. man daal tey jii daal je veux une place dans l'avion rek. <laughs> une place à la maison nga bëgg. ci lal bi. nuyu sama xarit bi ah, ñu ma fi fekk yëpp. waaw sama kër daal laa daal di nuyu sama waa kër mm. euh, di remercier euh, Khadija ci chance bi mu ma jox parce que mos naa woon wax Pape Cheikh da koo fàtte mm. mu ni ma moom ma moo ma njëkk a invité nag moom ak Aïssatou Diop Fall ñoo ma njëkk a may chance ma génn ci télé moom Pape Cheikh mm. mu ni ma lan mooy sa rêve ma ni ko jouer cinéma mu ni ma di nga ko def mm-hmm. ah defagum naa deux films. mais bi ci gën a am solo gën ci kii ma joué acteur principal bi Aïssatou. te fii la ma ko fekkee ci buntu tele bi ma pare émission rek mu gaaree oto. ah ouais ni ma dama fii la commencé fii la ñëwaat. fii la ñëwaat ni ma lay jël si benn film. waaw ah, man dinaa ko mën mu ni ma non bien dinañ la coacher ba nga. on va le faire man man laa bëgg a sax parce que souvent dañuy wax que kuy def théâtre mhm. en général du mun bàyyi personnage théâtral bi pour dugg si rôle cinéma. ça n'a rien à amoon na quelque dëgg technique nag ay technique la nag hmm. technique yoo xam ni mais da ngay gis ni rek technique yi bu fekkee am nga fee tuuti kii rek hmm. notion rek boo ñëwee fii dafay jàpp parce que am na yoo xam ne nit da koy judduwaale ka yaa jàng bi formation yaa ñaña ñi yaa ñaña ñaa dafa am ñoo xamante ni ils sont nés artistes ci foo leen teg ñu def fa li ci war te yow da nga ci genre euh, yi muy mu nekk théâtre mu nekk feneen. Mm. bu jouer le pas sérieux sévère. nga bañ ko ci rôle bi. Mm. Euh, mu en fait day joxe rôle. ah mu lay épouser donc ah. franchement c'est ça le ah. secret. Ah. bu bu defee comique. nga ne saa neex comique rek la mën. xadi mi doful de. bu defee lu <laughs> sérieux nga ne lii voilà mais man j'avais juste une question euh, peut-être yéen ñaar ñëpp laa koy posé ndo pourquoi le choix du costume jaune. nœud papillon bi parce que franchement. moom moo ko distingue en fait euh, euh, je regarde souvent les films. avec les couleurs je vois que les couleurs vont avec la. texture du film xaw ma na xam nga avec le noir à l'intérieur et puis comme il est grand soo su ko soo ko defee si vue d'ensemble ci biir nit ñi da nga koy remarquer tout de suite parce que j'ai regardé le film mais j'ai pas arrêté une seule minute mais franchement pas. le costume man j'aimerais bien savoir déjà yow euh, choix wu costume bi fan la la dikkee ak mbaxane beeg yooyu yow tamit bi nga waxee costume bi ba nga koy sol est-ce que neexoon na la est-ce que tu étais à l'aise parce que gis nañ la ngay def ay scène de combat yeeg galop et <laughs> loolu de mooy sofi lu ceeb bi bi nga koy togg nga boole kook euh, <laughs> xorom. def ci diwlin nga def ci diwlin. c'est ça la question ouais, non, mais euh, fait euh, Saner le, le choix de Saner déjà. Mm-hmm. man dama koy remercier parce que il a été tellement professionnel. Ouais. il, il est super professionnel et très intelligent. dafa muus macha allah dafa muus parce que cinéma ak théâtre c'est pas pareil. nu mu doon jouer feneen ak nu mu jouer si une place c'est pas pareil. Mm-hmm. donc euh, à chaque fois on a on a on parlait hein, on discutait beaucoup si naka lañ koy defee et tout et à chaque fois dañ doon wax cinéma c'est plus intérieur donc il faut il faut que mu mu intérioriser mm-hmm. affaire bi mm-hmm. mais c'était rapide. sonnuma franchement sonnuma parce qu'il s'est donné voilà il s'est à fond donc les les les couleurs les costumes je suis co chef costumière ouais, aussi et plasticienne donc euh, choix wu couleur bi c'est c'était mon choix man nii laa dom gisee image yi mm. euh, parce que Afrique dañuy fàtte benn affaire à chaque fois bu ñu def ay film on voit que l'Afrique c'est noir c'est mm. mais bon c'est sombre et tout mm. l'Afrique a beaucoup de couleurs. Ouais. C'est vrai que suñu environnement c'est un peu comment dire aride peut-être parce ah, qu'on est au Sénégal zone bi dafa ah, aride. voilà c'est sahélien. donc je me suis dit il faudrait que ñu montrer couleur Afrique. Mm. parce que à chaque fois. ay xaritu étranger dañ ñëw ils disent que mais ah mais li ma gën a attiré c'est Afrique mooy la couleur. Mm-hmm. les gens s'habillent avec avec avec ah des couleurs. donc aspect boobu dama ko bëggoon wane. Mm-hmm. c'est pour montrer aussi que l'Afrique mm-hmm. euh, elle, elle est joyeuse quand même hein, quoi qu'on puisse dire il y a des problèmes et tout. Mm-hmm. mais couleur yi day montrer que ne parce que quand on s'habille en couleur ça veut dire que ça va ça va quoi on est bien donc euh, loolu laa doon bëgg montrer c'est vrai que choix wu bonnet bi c'est super important parce que il, il est là on le voit tout le temps mais il fallait l'identifier par rapport ak groupe bu nit la nekk di dawal. Mhm. il fallait qu'il soit là il fallait que à chaque fois que buñ koy gis. c'est lui on le voit et jaune bi aussi c'est pareil mhm. donc boo leen seetloo film bi en fait il y a à peu près trois couleurs mhm. seulement il y a du bleu du jaune du rouge et orange à peu près donc si loolu laa bëggoon voilà exactement donc même euh, euh, on a travaillé après l'image mais c'est vrai qu'on l'a fait en amont hmm. d'abord sur les costumes et, et, et la déco mm -hmm. ba pare ñu finir ak post prod bi donc pour def couleur film bi. en fait waxtaanam bi man man question bi ma la bëgg laaj. attends il n'a pas la question. jabaru Sanex bi bi ko Sanex tàggoo ba pare ne ko man damay dem fekk moom mi ngi togg yaasa man déjà man plat yaasa bi nga jël déjà <laughs> et moom day daw ndeysaan sa kër ga ba sa avion ba ne ko fa nga lekk. Euh, yaasa bi voilà yaasa bi man dama bëggoon. yéen ko rek euh, voilà pourquoi pourquoi pourquoi avoir fait que jigéen bi rek topp jëkkër ji noonu rek. Euh, yore plateau bi pour man loolu am na benn signification. bien sûr que am na benn signification euh, xam nga en général jigéen ñi bon si suñu société on di que góor mooy jiitu jigéen topp si ginnaaw mais boo xoolee. Euh, décision yi la plupart ñun ñu ngi rester derrière mais li ci gën a bëri jigéen moo koy moo koy moo koy jël foyer jigéen dafa mun téye foyer donc gis na jëkkëram moo ngi dem Donc même Yasabi, ça fait partie de, de, de notre culture. Déjà, même foyer bi, c'est d'abord euh, à la fin, ils sont, ils sont à trois, à mm-hmm. mm-hmm. Donc c'était important, nous, pour qu'on ait foyer bi, ni di la mm-hmm. foyer bee ngi nii en fait c'est ça c'est la femme la femme africaine sénégalaise qui voilà dit à son mari attention mm. il y a, y a le foyer qui est là voilà tu es en train mm-hmm. de de de lâcher peut-être la chose la plus importante mm. voilà c'est ce que je voulais euh, montrer à travers ça ouais, et puis et puis man su ma bëggee ñëw aussi moom mooy côté euh, disponibilité par rapport au public sénégalais euh, est-ce que yaa ngi prévoir benn stratégie qui permettra peut-être euh, aux Sénégalais ñu mën ko seetaan s'il le faut une projection publique comme ça ñu mën ko am puisque bon à défaut de ça décidément ñu mën Sénégal yi tamit mën a seetaan daal seen yëf ñu mën ko teg Mourchid TV xanaa <laughs> wala beneen bi duma xam alors nañ ko teg fu ñu fépp parce que film yi ñun bu ñuy def film hmm? dañuy bëgg aussi def film pour le Sénégal d'abord hmm. suñu société hmm. avant muy dem feneen mais malheureusement gis nañ ni il faut mu dem def yeneen festival yi soog ñëw fii mhm. prix bi deuxième prix euh, bi euh, une place dans l'avion gagnée ACP mhm. ñu permettre ñun ñu dem à l'intérieur du Sénégal mhm. loolu mooy suñu souhait en tout cas ok super dafay jaay est ci tournage yoo xamante ne ñun bëggoon nañ ko fekkee te fekkee wuñ ko ñoo xam ne dagg nañ ko ma waxaale film bi d'abord il faut que heures du matin fekk la ci plateau bi six heures pile dafa dafa dafa dafa xawoon doy waar aw ma habitude di sol euh, ay souliers parce que man toujours sport laay sol. Euh, wala yi nga war ko sol. ak kilomètres yi ma daw yëpp. <laughs> metti woon na. parce que parfois nga tëj ak benn kekk war a daw ci muy répondre ci sa cheville yi. metti woon na et puis période chaleur lañ ko tourner oh. mu nekk cuir aussi. ça faisait très mal. beneen bi costume bi xawoon na seere te dama waroon technique bu xeex bi parce que technique la xaaj ci dóor mu pare. ngeen jaxasoo daw parce que roulé boobu ma doon roulé ci suuf aussi suuf bi dugg sa sa <laughs> bakkan yi. <laughs> mais après film bi dem ba nekk réalité ci man parce que. Mm. ma fàtte woon ni film la. Mm-hmm. après ma teg ko dëgg parce que <laughs> dañ ma boole woon nag ay athlètes yoo xam ne équipe nationale lañ nekk. te man bugguma woon ñoom sama jom mayu ma woon ñu raw ma <laughs> il fallait ma daw daw benn bi fi ma njëkkee am bànneex mooy bi ma dawee gis vélo ma ni foo man si suis sauvé bàyyi ma jël velo bi fàtte naa ne film la de ma daw jël vélo bi ndekete vélo bi dama ko sàcc ma sànni après bi ma dawee ba ci moment bi nga xam ni nag gis naa avion bi mais ralenti bi jar na te ñoom ra ñu ngi may raw foofu ma métamorphosé wu pour nekk càkkaaba boobu aussi neexoon na ma. Ah, parce que parce que boobu il faut ma il fallait ma nekk càkkaaba pour mën a jéggi barrière aéroport bi pour mën a daw njëkk leen ci avion bi. fàtte woon naa ni film la dama ni j'ai réussi quoi mais euh, film bu ma bu bu. mais mais ma dégg saa man j'ai eu à travailler avec Khadija et je pense que ne quand elle a eu l'idée waxtaan nañ ci ba je l'ai même remis le numéro de de sa mère et malgré ça ñun ñëpp ñu fa nekkoon ay acteurs elle avait toujours le choix porté sur sa mère. foo ah, waxee tout le temps tout le temps. et puis mës naa jooy ci film bi ñoom xamuñu ko. <laughs> Euh, dañu daw bi ma génnee ci kër gi bon benn bi dama ree benn bi dama daw bi ma jooy mooy bi ñu nee bi ma dawee nga gis monde bi ñëpp daw pour njëkk ci avion bi sama yaram dafa daw dama ni mais tiens Afrique nii lañu bëggee voyage après bas jaxata ji joué gumba bi mm-hmm. moom it en tant que gumba mu bëgg a dem ci avion bi mm-hmm. boobu bi ma ree nag mooy bi ma dawee dawee gis mannequin bi tamit bàyyi liggéeyam en tant que mannequin ah, ah. daw di nekk ci avion bi ah, après Demba Cous traversé ma <laughs> waaw naa a ko loolu dañu coupé quoi parce boobu moom dama réew dama ne moom moom jéegé. toujours di bi. di nga ci dem maire yi jaay caaf këpp seen ah, caaf yi ah, ñuy jaay mango ci marché bi këpp seen mango yi bëgg dem ci avion <laughs> ma ne mais est-ce que tubaab yi du ñu ree tamit. <laughs> mais loolu c'est très significatif parce que dafa wone euh, que ne euh, que nga nekk fii Sénégal wala Afrique am situation bu baax donc nekk mannequin wala ñàkk am situation bu baax. daf leen di jaral bàyyi seen situation bu stable. dem feneen ça am na ay situation yoo xamante ne la de. non je veux dire bien maquillée euh, bien habillée. Euh, non pas dire euh, am assise assise je veux dire mais moom réalité bi mu bëgg a génne. Mhm. fa bëgg a wax ne que ne am na ñoo xamante ne du même malgré seen situation stable bu ñu am du ñu gis lenn. lu dul tukki parce que dañu foog ne ne bu ñu demee. ils vont avoir mieux je pense que c'est ça. mais attends wax man mën naa cee d'accord. Mhm. parce que aussi ku mel ni sama doom. kon dañoo dégg waaw kay la ku mel ni sama doom par exemple. Mhm. il ne faisait que ànd ak ay moroomam di bolu rek. rek bulut rek bulut lekk caaf bulut def sama caaf boobu di bulut bon bi mu gisee ni maa ngi dem man dafa gis ni moom sama man wàll wéy na li may def def naa ko fi mu taxaw ni ma papa est-ce que man mënoo bàyyi ma dem kooku tamit boobu mënoo naa ko bàyyi mu dem parce que moom boolu rek ay métier mais mënoo am si yenn situation yi tamit dof dof gu tool ni di ko fi bàyyi di dem ay Europe nag tamit wax am na ñu bàyyi parce que en fait. waaw ça dépend ci liggéey bi en fait loolu laay wax. am na assise yoo xam ne am na am na ñu jaay seen ay ay bagages. am ñu bàyyi seen liggéey euh, pour dem parce que mm-hmm. justement film bi justement aspect boobu <laughs> aspect boobu lay wane aspect rêve bi lay wane xam nga rêve da lay yóbbu fu nekk voilà même rêve da lay yóbbu fu nekk ñu ñëw ci ci benn affaire mooy production film bi parce que souvent fii dañuy gis ne cinéaste yi dañuy kaas production bi demeewul noonu amul appui et tout ça euh, naka nga gérer production bi pour def film bi alors production bi euh, c'est Omar Sall de Ciné Cap qui a produit fruits. Mhm. donc ñun dañu am fond wu euh, Popica. Mhm. bu ñu jox avance sur recette ñu mun a def donc à 60 cent gouvernement sénégalais moo ko moo ko financé. ah c'est super euh, mais euh, après tout le reste moom franchement c'est Omar Sall qui moom moo doon gérer ko. Mhm. moom mooy producteur bu waaw d'accord a avancer ci mën a parce que justement euh, man sama choix mooy que euh, su may tourner dama bëgg juste concentrer aussi artistique bi. ok tout ce qui est production voilà je m'occupe pas mais après que ça ça rentable ak euh, festival yi ngay dem ak prix yi ngay gagner. oui ça devient rentable. oui je pense que ça devient rentable. et c'est bien tant mieux alors donc pourvu que ça en fait fi may ñëwee fi may ñëwee toujours ci film bi moom mooy. tey euh, bi nga lancé wu ci aventure bi est-ce que tu t'attendais vraiment à toucher autant de monde euh, par rapport ak bien en étant objectif bien sûr est-ce que yaa ngi doon xalaat tey portée bi nga am au-delà du même du Sénégal euh, que dana ko am. pas du tout <laughs> pas du je sais que euh, j'avais envie de raconter quelque chose dama bëggoon. raconter benn histoire euh, yaakaaroon naa ne public bi sénégalais bi dina dina si retrouver wu. yaakaaroon naa ne ñi tamit ñi nga xam ne ñu ngi fii am envie génn dem dinañ si retrouver wu mais ampleur bi mu am bon j'espérais ah que nit ñi bëgg nañ ko quoi <laughs> mais ampleur bi mu am tey jii nii. xalaatu moon mu egg. ah oui ah oui a tout le monde. ko man quand ñun quand on dans cette émission sax. Euh, oui a eu beaucoup beaucoup de prix. biñ euh, ciy wax ci émission bi boobu xamuñu la sax mm-hmm. euh, comme quoi yaa ngi def fierté. bien nit yi dañuy am xaw ma nan laa ko mën a waxee mënoo ko sax comprendre en fait. Mm-hmm, mm-hmm. parce que da nga passionné naturel def nga li ngay def rek voilà mais mënoo xam sax. nit yi nit ñu amee ah. mbégte ci. film bi nga def une place dans l'avion et puis ça neex euh, c'est pas la première fois nag euh, ñu gis ko ci euh, production bu mag entre guillemets parce que d'habitude <laughs> dañuy différencier yenn ñi liggéey fii ak yeneen li ñuy def ni yooyu ñooy yu mag yi wala yooyu ñooy yu professionnel yi moo tax j'utilise baatu ba entre guillemets bi puisqu'il y a beaucoup de jeunes yu nekk fii def ay production malgré seen ay maigres moyens mais ñu nekk ay professionnels donc sa neex ou Cheikhou defe naa c'est pas la première fois Euh, lu mag lu toll nii ba tey yaa ngi aspiré euh, pour euh, continuer ci stade bi bokk ci ay film yu mag waaw waaw moom moom Pape Cheikh loolu rek laa bëgg xam nga xam nga yow sa ñaan moom jig na ma. parce que waxoon nga ma ko gis naa ko ah. ah nga ma ko gis naa ko. loolu rek laa bëgg ah nga toll nga. waaw loolu rek laa bëgg d'ailleurs moom am na projet yoo xam ni maa ngi ci ak moom yoo xam ni ay long métrage la et tout ça ko àggale incha allah loolu rek laa bëgg ah. li may wax sax moom mooy ñu mel nii lañ soxla parce que bu ñu amee acteurs yu mel nii c'est d'avoir de ay producteurs wala productrices. réalisatrices yu leen mën a propulser au devant de la scène. mu nekk une aventure boo xamante ne au delà du benn film euh, di ngeen defaat yeneen euh, réalisation parce que comme ni ñuy wax Afrique wala Sénégal suñu saaneex bi bu ñu ko yóbboon Hollywood billaay wala talaay. gars yi ñu ko mënal dara. Mmh. France amoon nañu luy de finesse ah, voilà pour tout ça quand il joue ah. on est c' est le Sénégalais amul Sénégalais bu dul kontaan et malheureux et comme comme je dis toujours xale yi nekk ci ginnaaw di ko xool moom bëgg doon li mu doon. tax na à chaque fois muy gis ci ay rôle muy yokk jom. loolu je pense que ne tey euh, film. mooy mooy mooy le phénomène saa neex ci côté comique bi aussi dafa dem ba dafa yàq ñëpp. Ah